soxna Fallou Jon Jonn ak maam Diarra Tall yeneen ñaari ci des dañuy jàng di ñibbi Fatou Diop ak Fama ture Euh, di leeral rek ni njàng mi doxe nekkul alxuraan yi kese la ñuy njàng ndax alxuraanu kese boo ko jàngee ba mokkool ko te xamoo ni ñu jaamoo yàlla mi ngi mel ne nga tiim ndab loo xam ne mu mënoo koo lekk leen di jàngal seen faraa'idul ni ñi nga xamante ne bii sax feedaguñ igi sax dañ leen di jàngal seen faraa'idul ayni ndax nit ki lépp loo bëgg mu màggaale ko danga koy jàngal ba muy gone ndax euh, dañ ne ab bant moom dañ ko juboon ci bi muy tooy ndax am na ñoo xam ne bu ñu amee juróom-benn xisib rek ñu jëlee leen ci daara ji yóbbu leen balaa boobu nag dañ leen jàngal nu ñuy jullee ak bu julli yàqoo nu ñu koy defaree lépp lu ay ci seen faraay doy ni te tamit dañuy jaamu yàlla ci biir daara gi dañ leen yaraale ñi mokkal nag ñi ngi beqi te incha allah suñ noppee ci beq bi dinañ bind kaamil fas nañ ko yéene dañuy jàng tamit français ñaari fan ci semaine bi euh, ba ak alxamis dañuy jàng téere sëñ Tuubaa yi Tasawudu Zixaar la ñuy tàmbale te dañ koy tari di ko mokkal ba ko képp koo ci yee ci nelaw ne ko lii lu mu doon mu wax la ko ndax nit ñi buñ nee xam-xam dañ jàpp ne dafa jafe te xale moom balaa am 15 ans war naa xam buy dabee ci julli nu muy dabee su julli yàqoo nu mu koy defare su julee ba juum nu koy defaree am jàpp sax bu yàqoo am na lu ñu koy defaree loolu lépp dañ leen koy jàngal ci biir daara ji ñi nga xamante bii nag ñi ngi jàng tasawur jixaar dina fekk ñu xam leen war ci seen diine waaye nag dañuy mottali làmp murit bi tamit dañ koy jàng di ko tari làmp murit bi sëñ xaalil tasawur jixaar la ci way ak jawhar dañ koy jàng ba mokk te dañ koy tari jàngalekat yi itam ñu ci ëpp poroxaan lañ jóge ñenn ñi itam ñooy ñi mokkale ci bi daara ji di jàngalewaat ci biir daara ji bari nañ lool maam jaara mbeng maam jaara jaxate say njaay fii lañ baax ba mokkal bay beqi di bind di jàngalaale ci biir daara ji di jàngal xale yëpp wa lool daal xamna mo nekkon programme bi di jéggul bu baax ci cadre yi waaxi daawaana an alhamdullilah rabbil alamin wa wasalaamu alaykum amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لُدًّا وكم أهلكنا قبلهم من قوم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا انتم إذا انشأكم من الأرض وإذا انتم أجنة في بطون أمهاتكم صدق الله العظيم الله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد فالله سميع عليم صدق الله العظيم بسم الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول la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 قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العظيم دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا njëlbeen ak neen rek la ci tari juróom-ñaari isib ñaari robo su ko tër su ko bàyyee ren léegi bu déwénee boo ko ci tari loo waatee nisif du ko tari nisif kon gan gi door a dugg ci dënn gone gi muy alxuraan nga daal ko ne cëfit yóbbu ko fekk benn yoon képp la tari ci kanamu nit ñi dafa des lu bare bare bare ngir alquran dekk alquran fay dekk day dem ba and ak deret te alquran boko mokale mokal ga ca war boko ko jang ab bis boko tambale tari day melni moy dikkel bopam day melni ñu ko xamoon mu eh sëñ Maxtaar Kebe eh seigne Nangam nga xane day melni mom moom araf yi ñoo lay yàkkamti mais fofu nak àgg fa mo jafé gone yu bari dañuy min bo le ne yah <laughs> tambale tari da tambali dootuñ xamati fiñ tolong dekk gogo nak likay tax alquran man ko moy buñ ne gone gi tarina na koy bayyi fim don doon jànge ñu sas ko ñaar fukki isib sëñ sëñ Al ngi ni ku ma san nuyu seigne Saal ne ko mokkal na alquran daan la sase na la ñaar fukki isi bi seigne touba dan sasé ñet fan yu ne nga wacce alquran ci daara ji te du te yaangi ngi alquran di jàngale xam-xam da ngay mujj yow da ngay dem ba alquran man nga ko dan arrière nga ko du mëna def way avancé mom ci tagu kenn kon sa dom mokkal dan daara ja dang ko fa wara bayyi ndax li dess da bari bekké ngi fi wawa ngi fi bekk ak waw du ben alquran day waw alquran ju toy mo yees parce que ko xane bo ne ak bind alquran bo ko bind koy geestu ta baat bo jubatoo to xam sin sa da toyam bar ba dafa dafa dak dafa dog lor gaaw gën génn ci daara ji daf ko daan waral di ndokkel xale yi nga xamne ni fi garal alquran ju am solo ji ci mokkalinu rafet wi te dalum xel lol xamna naa liñ ci yok du bari ndax ci si wax daanaka mënuñ sa wax lu ci yokk xanaa dégg ko te jëm koo jëfee mooy li ci am solo te mooy daara ji ñi ko séq te ku nekk war cee jàpp muy kii jàng ak kiy jàngale ak ki nga xam ne ni mooy waajuru xale bi ak ñi dëkk ci koñ bi muy fi quartier maanaam quartier bi daara ji nekk ku nekk bu jàppee taxawaayam rek daara ji dana mën a dox te du am benn jafe-jafe boo xam ne nii moom lañ ciy seetlu kon ni ko suñ Maxtaar waxee ñëpp bàyyi ko xel ku nekk taxawaay bi nga war a taxaw ci daara ji nga def ko ba xale yi nii ñu mokkal alxuraan ñu man ko wàll ñeneen ñu ci des ba ñëpp alxuraan ni sëñ bi bëggee mu law ci dëkk bi mu lawee noonu. di jëpp solo ci daara ji nag mooy daara ji dafa mel ne tout tànk yi fépp ay soxna lañ wala boog daara ji dañ koo jagleel soxna yi muy lu am solo liggéey bu am solo boo xam ne nii war naa gën a yaatu ndax ku nekk xam na ne ñiy defar ak ñi yàq ñëpp ndaw ñi lañ soxla ñiy defar ndaw ñi lañ soxla. ñi yàq tam ndaw ñi lañ soxla kon day mel ne njëkkante la ñi nga xam yàq leen tax a nag seen mooy am solo yu baree bari la ñu jël def ko ci seen liggéey ngir mën a xëcc xale yi ci façon yu baree bari ba def ci ñoom li ñu bëgg a def ci ñoom. moo tax ñu nga xam dañoo bëgg a defar tam nag danoo war a jël mooy toon wala ko ëpp fuuf mu jaral leen ko ñu def ci seen temps def seen waxtu def seen alal def seen lépp ngir xale yi ñu leen bëgg a fëkk mën leen bañ a fëkk. a'uuzu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah salli bi taslimin ala man faaxa fi xalqihi wa xulqihi tifaaxa bokki jullit fi teew yëpp ak bokki taalibe yi ginnaaw bi nu sante yàlla ni mu jaadoo ci jëmam ju tedd ji julli ci sangu sangi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam di sante bu baax sunu yaakar te ëllëg khadim rasul ñu ngi ñaanal bu baax cheikh mamadou muntaha mom mi nga xamne moy kilifa ak yoon wi te liggey bi ñuy taxawé fi tay mom mo ci ndigal soxna si kon soxna si neena mi ngi leen di sant di sante nak njabootu bopam gi di soxna Rama soxna Mamjara, jaara ak Mamjari, mam jaari yi ñu andal te ñom ñi ñepp tam ñi ëpp ci ñom proxaan lañ jàngé alcorane ba mokal ko soxna si taggu señ muntaha ngir mu wat leen ci daara ji señ bi nangul ko ko ñu ñëwaat sofaat liggéey bañ doon def proxaan te lool moy firndel ñi fi jaar liñ wax légui né alcorane kenn du ko bax soko bayé mu bala ñom bàyyiwuñu alxuraan alcorane motax tay lañ defon ci ñom ñu man ko defaat ci yenen génération kon nak soxna ci neena na mi ngi leen di yeen kadi kat yi di leen geureum ndax jangale dafa metti li ci nek lepp xam nañ ko jànkonte ngeen ak lepp te neena andu ak mom ci dara ndax amul lu ngeen sartal ne mom la leen wara jox su de won tam mu ne leen talal leen seen loxuma ñaanal leen ngeen def ko kon soxna ci neena na mi ngi ñaan ci barkeb seen bajjan soxna jaara sun borom taxawu leen fi ak fuñ jëm li ngeen yéene ci gone yi yalla ngeen ci am lu ci barke Serigne Touba soxna si na xolam sedd na ci yeen guyu te li la seen wajur bëggoon ci yeen ba yobul na proxan ba ko seigne muntaha defee ci yeen tam bàyyiwu len da ngeen ñëwaat fi di ko fi defaat kon nak ñu ngi len di sante di len gëreem di len ñaanal yalla li ngeen yéene suñu borom defal len ko ni ngeen ko bëgge ci Serigne Touba daara ji nak Serigne bi tarif tay bi amna lu ci feñ ndax soxna asugawan lañ tuddé daara ji suba lañuy magal soxna asugawan tey ci ngoon gi gone yi gàttandoo seen bàjjan boobee tari alquran ci daaray soxna Astou Gawane te soxna Astou Gawane ku ne xam na li mu am ci Serigne Touba sañ-sañ bi wax naa ne leen rek doy na ci firnde mooy jenn doomi Serigne Touba ju jigéen ju daan liggéeyloo doomu Serigne Touba yu góor yi kon nag ñu ngi lay ñaanal yàlla ci barkeb Cheikhul Khadim lii nga def ndaje mii yàlla na nga ko yàgg woote. sëriñ Muntaxa bërki démb dane wax na ba sonn waaye wax ji daa mel ni jëriñut dara waaye yow Mbàkke bokkoo ci nit ñi déggul wax ji bokkoo ci yow wax ji sëñ Muntaxa doon wax ne jëriñut dara yow wax ja da nga koo teel a dégg ba nekk ci li sëñ Muntaxa bëgg ndax sëñ Mamar wax na ko léegi bi xale yi taree bañ leen di seede mu ne sëñ Touba nee na li ko gënaloon mooy dëkk Touba di jàngale alxuraan loola nag yàllaa ko nattoo munu ko ak pexe Touba yi kon ku nekk Touba di ko fi jàngaleel alxuraan yaa ngi ci lim bëgg. moo tax may wax toujours ne yow su fekkonte ne sëriñ bi daa am téeméeri sër yu jigéen yu mel ni yow di def li ngay def kon sëriñ Muntaxa du yëkkati kàddu mukk di tere dara ci dëkk bi ndax defar gone yi ak yar leen ak jàngal leen loolu ku fi mas a jaar moo la fi indi ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon boo ci nekkee yaa ngi ci sa waru gar damay wax ne sa bàjjan ñaari façon la dafa am koo xam ne sa càmmiñ koy jur jox la ko ngay bàjjanam moom nag loola rek lay jàpp waaye du jiimaat dara ba baa mu lay muur nga sëyi waaye dafa am bàjjan yoo xam ne ñoo fi jiitu mooy soxna Astou mooy soxna Momi mooy soxna May mooy jigéen ñu baax ñooñee ñoom suñ leen masaan jox seen doomi càmmeñ la nekk ca ñoom ca ñoom la def ci moom fu mu dem man faa ne fu mu dem dem du fa rusloo yàlla du fa rusloo yonent bi du fa rusloo sëñ Tuubaa yow nag mbàkki loolu ngay def man mi man na maa seede ne ñiñ la jural mooy doomi taalibe yi ñu jël leen teg la ci teg teg ko ci sa loxo ñoo la gënal say doom loolu mën naa koo seede coono bi ngay sonn ci ñoom doo ko sonn ci say doom tox soxnaa ngi soo xam ne lantenoor la du téye diw lépp lu ko waaye jox mu defal la ko ci sëriñ Tuubaa kon nag ne ko ñëpp dégg te képp koo xam da ngaa bëgg liggéey Serigne Touba nga xam ne kii day liggéey Serigne Touba nga ñu ànd ak moom liggéey Serigne Touba kon loolu mooy li nga xam ne sëñ Mamour bëggoon nañ la koo seedeloo yow ak Serigne Fadilou soxna Assou ak kilifa yu baax yi fi nekk ak parents d'élèves yi ak mbooleem ñi wuy si woote bi soxna si nag sant na ñëpp gërëm na ñëpp mi ngi ziar ñëpp